candidat Ousmane mën a jot ses fiches de parrainage et compatriot chers li wér mooy ñun pare nanu parenage pare nanu le programme bi nga xam ni les cinq six et sept mai liggéey nañ ci au Radisson Blu yéen ñi ngeen couvrir ko programme bi nga xam ni trois cents experts ñoo ko seqoon domaine bu ne ñu wax ci ay propositions yi nga xam ni programme boo leen bëgg ci àddina bi dem leen ngeen jëli ngeen ñëw mettre en compétition ak programme boobu vous allez voir que nous avons très très bien travaillé nous avons profondément travaillé et avec Abdourahmane Sall et son équipe très prochainement dinaa poursuivre la tournée nationale et internationale parce que ci sama doxalin përëx përëx da ci bokkul ci sama doxalin lépp dama koy teg ci timing parce que une élection présidentielle elle est sérieuse diriger un pays du lu yomb et dafa demander une organisation dafa demander de la méthode Il faut demander de la rigueur. Il faut demander de l'autorité. Et croyez-moi, si vous nous faites confiance, yii ma wax lii ci noonu la ñuy doxalee Sénégal ci noonu la ñuy téyee Sénégal te bu boobaa amul kenn fooy mën a ne ci àdduna ba gis sénégalais. war kaa mën a yàpp wala war kaa mën a dil parce que ni ñuy téye sa ay citoyen mooy yow taxawaay ba ngay am en tant que dirigeant ni ñuy xoolee sa ay citoyen mooy taxawaay ba ngay am en tant que dirigeant et croyez-moi le jour où je bénéficierai de votre confiance xoolaay taxawaay buy bépp chef de wala état di am ci sénégalais dina soppeeku parce que du nu may ku yàpp mënoonu yàpp ci lenn aussi fa nga jàng la nu jàngee génne fa ay major la nga xam la xam la am sa réew moo am sunu réew mënoonu yàpp fenn ba war a yàpp benn sénégalais ba leen di tegaat ci yenn conditions yi di leen di fule kon nanu xam sunu bopp am taxawaay bi waa moo tax très prochainement daanu reprendre cette tournée au niveau nationale et au niveau international wax ak sunu ay compatriotes ñu ñëw ensemble ñu liggéey réew mi nga xam ni ñun ñoo ko bokk programme bi am na parrainage bi pare na et avec vous, on va faire une très belle campagne, Inch'Allah. Mais avant l'ONU, de demander encore au président, nous faire képp ku war bokk loolu du ma jóg ci di ko wax du ma jóg ci di ko répéter nommé nañ ko à l'étranger c'est bien mais na am d'abord la reconnaissance de Sénégalais et des Sénégalaises na am raayewu sénégalais ak sénégalaises yi te raaye boobu mu am ko jafewul mooy na génn ci li mu ne na def li sénégalais yu bëgg na fexe ba ñëpp bokk na fexe ba am génn gu rafet génn gu rafet googu day taaral Sénégal day taaral Sénégal day jox jëmm Sénégal ci kanamu àdduna bi donc na calculer loolu et je lui lance cet appel là le 17 na procéder à la correction mënoon naa continuer di wax ci sujet yu bare mais duma abuser de votre temps et je sais que ñu ngi seetaan ñëpp ci sujet yu ëpp solo jotoon nañu ci dégg également et on aura d'autres occasions di leen gërëm encore une fois di leen sant ci teewaay on va résumer ça très vite en français oui il me il me parle du report xam nga mënoo fekk chaise bu baax chaise bu baax bu sénégale yi di tabax ay ati at ak énormément de sacrifices qu'ils ont u à consentir pour que chaise bi am cette stabilité chaise bi am cette assise chaise bi am tey jii nii mucc mucc ayib bi tax Sénégal yëpp bàyyi xel chaise bi nga ñëw toog ci ba ba muy waaj jeex damm ko ni finalement nañu reculer pour may ma temps ma construire ko xam nga tactique yooyu stratégie yooyu c'est dépassé ku mënul respecter sa calendrier républicain nan ngay mën respecter l'agenda de développement je vous pose la question franchement c'est un faux débat c'est dire quoi c'est dire au président Macky Sall toogal nga continuer di tëj nit ñi toogal ba ñu génne nit ñi ci prison yi toogal toogal non c'est un faux débat il faut jamais voir une solution comme ça mais solution bi nga bañ ci yegg di wut ay voies de contournement quelque que soit voie de contournement bi ngay jël le problème il va demeurer il faut aller directement ci solution au problème bi et je vous le dis le problème le 17 le président Macky Sall sait qu'il a la solution et la solution elle est toute simple na fexe ba Ousmane jot de parrainage am continuer na fexe ba régler problème immigration clandestine bi ci quelques mois yu ko dese na ubbi école nit ñu dem jàngi ubbi université nit ñi dem jàngi ci quelques mois yu ko dese looloy solution yi mais mënoo gis ni problème bi di créer beneen problème ci biir problème bi ça c'est pas Déthié moi un problème les rapports que j'ai avec un problème mooy de les éradiquer mais aussi de les affronter mais je les contourne jamais Donc il ne s'agit pas de contourner le problème, mais de le régler. Donc, c'est un faux débat. Et ce n'est pas avec ça que le problème, ça peut se régler, tu les résoudre.